Y'all yeah, gonna know. Paradise is the only way. Tanga tanga dox naaj bu tanga bu gannaaw ku connect sama lampa tanga. You know, people help you uh, to, uh, to be there. Mm. People help you along the way. So uh, if you're already there, if you are on top of uh, you know the game, you know don't forget uh, the people that drive you up there. So uh, in a nutshell, it's a you know it's a beautiful song right there. So from right there, uh, that is uh, track number two, uh, Bulfate. We're gonna check out another uh, another sound. It's called uh, Nehud, you know uh, Nehud, uh, from the mixtape uh, From right there, you know I'm gonna open the mic. My guest right here is in the studio, so we're gonna open the mic and you know have some little chit chat about. Uh, the uh, most anticipated mixtape right there. I'm a fan already. I'm a fan, man. I love, I love, I love, I love the project. So let's uh, let's uh, go and check uh, track number three. it's called Nehud. Uh, Nehud. Mm -hmm. dolli la suku toog onda betoy tooy wax ba booy rab ba yooy dunu teg lu noy kon le ma sa hë ram raam yu raar bu de maa ni fekk ma baar du na toog di waar time no dee mix table ñëpp di xaar hë la ma top top topp di nga dëpp dug nga dug nga dug nga kër dëmm sama yalwando ko kopp sama tàngoor do ko upp sama ko dëpp sama jant doo ko nëbb daagu gaaw si romba amoo kelle war ma nomba dëgg maayen des si bomba dëgër maayen relëg si bomba li may xelli si xalima daf la ëpp sañal sa nopp it's your boy Godfather in the building. Y'all gonna know my nigga. Uh, the the di bëggee everybody You nga xamante ne dañ leen déglu 360 So my number one fan la you know You are gonna follow show with. yeah and soo xoolee sax xam nga bokk naa si uh, si Facebook page you know what I mean yeah You are gonna go follow a baax and di shout out everybody You nga xam ne ñu ngi Yeah, this shout out uh, Kenny Licks, my producer, who bought Kenny Licks, shout out to you, man. Yeah, yeah, the shout out Ken Baha Baha Baha. Then I want to watch out for Ken when you drop EPMB, you know what I mean? And uh, this shout out to me, like General Neka America, Mom Game, Mo Job, some of the uh, big singer, I'm doing the mixtape. And this, yeah, and the shout out to me team, Neka UK, Mom Game, Mo Job, some of um, some of the bits that you Neka mixtape. Mm-hmm yeah and they shout out everybody like everybody especially like uh, fans yi nga xamante ni uh, you know uh, sister you have jigéen ñi suma some sister yi suma friends yi suma fan yi nga you know contribute nañ tamit si promotion bi di def snap xam nga you know mi nekk Instagram. Ah, exactly you know what bu baax a baax ak moom yi waa yee ñoom ñi nga xam ne yee mais ñoom contribute nañ tamit si vidéo bi bu baax a baax di saaral tamit uh, Njaay uh, you know Njaay Njaay xam nga Njaay aka ñu ko Njaay moom nga xam ne you know moom tamit moo shoot like uh, street beat, like yeah, sound no street beat video, Mogosu, yeah, yeah, Mogosu. Okay, uh, I'm not saying you want the Mogosu video already. Yeah, yeah. Oh, uh, beautiful. No, project with Amko Gene at Nyali video. Okay, Amko Gene at Nyali video. Yeah, my intro be at sound no street, Mufa street beat, yeah, yeah. Both time Amko video. And, street beat is a nice, yeah, nice vibe. Yeah, man. You know, but when I shoot video beat, you know what I mean. But Mogosu, Mogosu, Baha, Baha, Baha. And uh, this happened triple K Momo should intro be, you know what I mean? Triple K. Wow, triple K, yeah. J Life. Wow, yeah, man. Manko, shout out to you, man. Manko, manko, manko, Sarabu, Baha, Baha, Baha, you know what I mean? And mange shout out, uh, guy in Hamilton, you get support, uh, Bagasi, Baha. But mange shout out, uh, Jisu. the got congrats you know, bah, bah, bah, you know what I mean? Lower yes, level. Yeah, man. Level. Exactly, exactly, exactly, exactly. You know what I mean? Uh, uh, no, yaga here, duko yaga nyan yaga, duko yaga struggle. Yaga si jisu ko jarare. You know what I mean? Mo, not do me and maa ngi wax Gambien si yëpp xam nga ñu ko starté si you know what I mean yeah because of uh, next week ñu uh, ngi am attaque nga gars yi dem you know what I mean You ñu feesal ñu feesal tamit uh, Q-City yeah you know what I mean and attack attaque tamit benn young talented artist la bi nga in the for over um young. you know what I mean See music bi na ko gars support bu baax a baax and I mean ST tamit you know what I mean tam ngi nekk si beneen pipeline yeah uh, exactly tamit you know what I mean maa ngi ñaan maa ngi ñaan fans yi like you know and and Killer tamit you know what I ngi am dixième ba fourteen na bi nga xam nga ko leen dëkk bi bi yeah man na gars yëpp génn si support yeah man this country yeah, right here. Yeah, man. We gotta understand that. Yeah, man. We gotta understand. Okay, let's, let's get back to you, lady. Uh, Godfather itself, you know. Mm-hmm. Uh, when I guess a couple of times I'm gonna use Godfather, mm-hmm. they use Palm Mm-hmm. Which is which? Is it Palm Money? The straight name is Palm or is Godfather? Yeah, it's Palm aka Godfather. Godfather. Yeah. So it's both of them. Yeah, it's both of them. Like uh, Palm Money, my original name my mooy original name bi mooy baat name bi déet name bi ma tuddee. comme suma papa suma yaay yeah you know what I mean. Mm-hmm. Uh, Godfather bi like uh, is the title. Uh, so ñëpp dañ ne comme dañ ne like part of the old school la du ma old school but man <laughs> Godfather la music. musique bi. Godfather la si musique bi. exactly ok wala last wala godfather don't take it because bu ma doon déglu sa sound he money talks money talks money toog sama ci saal la maa ngi déglu vibes you know uh, just su ma benn rakk ñu toog nii mu ne ma kan mooy kii mu ne ma Godfather Godfather. <laughs> so I was like moom dafa confuse la mooy you know. yeah non non dina tuddee moom Godfather. non non ñu bëri sax dañ lay confuse nag. ak si jos bi ko xam nga comme Gambia fii dañ break down. ñoom dañ ko dee break dañ dee def góor. def father like dañ ko dee dañ ko dee separate dañ lay jàppee God bi mooy yàlla and father bi mooy papa you know what I mean so affaire yi du du loolu is join word la. join word la join word la God father foo ko gis mooy mooy elder mooy mag. mooy mag mooy mag. xam nga dafa God moo tax dafa am. am na comme tey so is a join word. it's not like the normal God father. non non non respect God. non non as no one spell it. non non non non non it's join word it's join word it's different like am nga tey Master Fo tey yow for example like tey yow soo amee doom mun ngaa xool sa benn with bu jigéen sa comme ni lay wax càmmiñ nga ne ko yaay góor moo da suma doom bi yaa ma understand nga xool paamam nga ne ko yaay góor fada ba in case yow soo fa nekkul ma may take care of xale yi ah, kii fan kii su fa kii exactly <laughs> ma lay take care loolu das das godfather you know what I mean so loolu mooy godfather ma may godfather game bi

rapport yu bëri sama fan leen woon xam nga yoon bi man maa leen ko woon. Mhm. you know what I mean. so yaa leen man yoon maa leen woon maa xaali yoon bi. jaajëf daal. kon daal di si studio Godfather. <laughs> yaa ko gis naa maa nekk Godfather. Uh, yeah beautiful. Uh, uh, basically uh, let's get I know uh, you have been in the game for so long. yeah. Uh, you know uh, Saturday is not something loo xamante ne kon dafa ah, straight dafa straight in the mm-hmm. game. koo xamante ne mu ngi si game bi he already know you. Yeah, for loolu moo tax ah, even though maa you know ngi suñu a direct contact. but when you call me and say okay Pa Momody. I know straight. because you have done something in the game and you are doing something. exactly you know what I'm saying. so ah, but basically I just want us to uh, get a quick rundown of Pa Momody fan you know just. Bugalarik. I know the first week. Yeah, yeah. Just Bugalarik. Okay. And Mama when follow them right, they won't be, you know, uh, they, they, they up to this moment right yeah, now. Yeah, because, yeah, for real, for real. Because this thought, uh, shot like uh, Palm started, well, uh, in 1996. 1996. That's why, like, that travel. Yeah, I was made, uh, I was motivated by. Uh, Mr. Jiva from Lendeham. Shout out to Excellence and others and, you know, Matt Dragon and stuff like that. Mm-hmm. You know, and we started from 1996. Uh, yeah, as as that time we were in grade 9. Mm-hmm. And from there, we can move forward longer because our parents uh, mm-hmm. didn't allow us to do music. But, you know, I was very strong-headed person and, I, I mean, I pushed forward, you know, even though I have a fight, I uh, fight with my dad, you know what I mean, and my my grand my grandparents, you know, they raised me up, you know. And uh, but the other partners, my other partners like Jovis and uh, in general, they left. Uh, you know what I mean? They, they quit. Yeah, they quit the they game. Could, they couldn't handle the, the, the, the fire. Yeah, yeah, because of the <laughs> parents' issues. You know what I mean? I know uh, it's, not, easy, it's it, not easy. No, it's not easy at all. Yeah. And from there uh, from there, I stay on the ground, you know what I mean, writing songs, you know, attending uh, some shows, you know what I mean, but not uh, not being in the in the media for 100, like hundred percent because I was hiding myself, you know what I mean. And uh, I mean, after there, I joined with my little brother called Moms is right now in U, uh, USA. Shout USA. out to Moms. Yeah, we I mean we have a crew called Glad, Glad Tidings. Glad, Glad Tidings. Yeah, yeah. We made a couple of songs, like I think six, seven songs. Mm. Then uh, uh, he got a visa luckily. Then he traveled. Yeah, you know what I mean. <laughs> And and still I'm in the game struggling. And then you know I've been solo dropping a uh, couple of songs. Mm-hmm but uh, I was not uh, I was not on air 100 percent live. Uh, okay, uh, you were just on your side working. Yeah, but I was, you were not focusing on the uh, you know try to, to try to uh, showcase yeah, your, get yourself to the Exactly, exactly, exactly. I just you know been in my good, you know what I mean, as normally they say, the underground, mm-hmm. yeah, recording songs and delivering it from uh, different radios, mm-hmm. you know what I mean, people play, some some some DJs, they play my song and, and relate me like a Senegal, mm-hmm. you know, saying like, I don't know this guy, but he's a Senegalese <laughs> artist, he's very good, blah, blah, blah. Yeah, and, um, and, and you know what I mean, from there, uh, then, uh, I mean, I joined a crew called Joy Hands. Joy Hands. Yeah I and, uh, and Normal. Then uh, we released a mixtape 2015. 2015. Yeah, Santangum. Mm -hmm. Yeah, from there, then uh, after the mixtape, Cameron released his mixtape. Solo mixtape. Solo mixtape, yeah, called uh, Health. Help. Helsico Yeah. Then after I released like a project, Bandicipet, it's a comp yeah, compilation album project mm -hmm. last year. Okay, you release is apprentice. Yeah, I live. Yusuf. Godfather right here. Yeah, from from from Bandisipet, uh -huh. I uh-huh. give them Tundo. Uh-huh. Tundo. Yeah, man. Mm-hmm. So from Bandisipet right to Tundo. Tundo. Yeah. Okay, by you you you, you reverse the Tundi. You know, say Bandisipet because Bandisipet, you know, uh, Magialong is uh, I think. But but post uh, I mean. Um, T-shirts here like this, exactly. T-shirts here like this on bandicipet, bandicipet. Mm. But uh, in a, in just quick, munga nyowa come like bandit bandicipet bi lan lan lan moko free. Yeah, bandit bandicipet bi moy nga xamantene like uh leppam nu mo def dapat dapat ko def on the ground ci mm-hmm. sutura. Mm-hmm. Xam nga doomi adama bu nga am sutura fa mm-hmm. You know, bandi you know like say say bandi mo ku wise, ku clever, ku clever, smart, mais Oh, bon nit ñi dañ foog ne Banjul mooy mooy mooy sàccakat. sàccakat laykat yi smart you understand and smart eh? uh-huh. and whatever you doing you mm-hmm. just do it on xam nga cuuraay sax balaa moo neex. mu gili mm-hmm. cuuraay balaa moo ne dafa gili yoon koo teg si da ngaa boyal ànda bi ba mu boy nga mm-hmm. jël ah, foil paper. nga teg ko ci nga teg ci cuuraay bi muy gili nanka nanka. bandi tam pet. pet. so bandi bandi in a nutshell pour gars yi gars yi citizen yi. Mm-hmm. aw citizen ne da ngaa dem ruuba ñu. non non da ngaa sori tam bi da ngaa pili. bandi da bandi exactly bandi da nga war a jàng da nga war dem toog office di liggéey da nga war a dem toog rajo da nga war a you build your did I so go hole like some president you found it, <coughs> cause uh, with smartness people like gay believe believe believe dikabi mm mm-hmm. I understand? Mm-hmm. Yeah, because so soon president ye bandele. Ye bandele sipet. Bandele sipet. Mm-hmm. Adama Baro bandele sipet. Ya Jemisa bandele sipet. for example like Adama Baro day. You will have the guy you get chow chow chow chow. Mune mune the na pini pini jan bandele bara. Next 2020 so hamu koko munge take take to gafi beden years. Koko we yip afre it, sipet. Lolo bandele sipet la. Munge please. Wow. Munge please my beautiful, beautiful. That project, uh, how successful was that project? Yeah, yeah, something. Um, I Manti to introduce like a flash drive, album flash, flash drive. Mm -hmm. Yeah. My is pending on this album. Partnership being what album? Last year. Last year, huh? Yeah, yeah. Okay. Last year, man. Last year. Mm-hmm. And and and China like uh, 200 flash drive. Mm-hmm. 200 flash drive. Yeah. Oh, you met. Uh, you, that was a quite, uh, you know, uh, good sales. Yeah, man. Jail Nanko 200 drive. Jail Nanko between Eric uh, and the phone show Alliance Franco. Mm -hmm. And it was very successful. Yeah. You know what I mean? maa shout out nag you yu compilation beautiful beautiful. ñu uh, second ñu dem uh, uh, uh commercials. Mm-hmm. then from there we are gonna discuss more about the Tundo, you know. Tundo, when you ñu in the uh, ñu you discuss a lot more about the Tundo. let's go for short short commercial break when we are back we continue. This one is called The Street. Share. anti crime bi di humiliate boy yi na xeeti bon crime bi di gën a yokk suba ak ngoon. je. kumba comme Pantaba. léegi rey fi nit du dara. kilifa dina yi di tiitaroo martaba. Mhm. fii la imaam biiral yaay ak doom. fii la nguur gi seel sunu koom-koom. justice bu du àttee dëgga. ay nit di saw si ay mbedd ko ci waxal mu ne la mbedd bi mbedd buur la tribalisme di gën a law doo jaar si yenn koñ yi ndax xeeti ndox but xesaw fii la njaay xaru benn paaya ko hypnotise borom alal yi seen doom yi leen sacrifice liggéeyante bi comme mbàccum gerte ay sa Sénégal bi kenn xamul lañ leen ko jox mu naan ba dee campement fees tëkk ak tafi waxambaane borom kër yu bari tëgga duñ koy àttee wuja liggéey na moromi wujaam bem feebar dee fii doo xaamee njirim ak baayo yermande dee si xoli jaami boo amul kenn du la aayoo mbedd bi mu ngi taw kenn amul fu mu aw bokkat deret bañante ndax kenn bañ kenn raw Godfather. This is uh, what we need, you know, entertainment, entertainment. Uh, you know, relate things that you know they are things that are so important uh, to uh, the people out there listening to you, because I think a lot of things are being portrayed in this sound that you know that is so important. E.g. E.g. Uh, people uh, you know uh, you know how many seben si you know seventy si is is so very un unprofessional un un un citizenship you know because a good patriot you know don't, dox ba si mbedda bi you know seven. seben but let's get back to the main man right here yeah bi I know them si strip bi yeah mm-hmm. I just want to know bëgg the concept of tour ndox waaw tur ndox xam nga soo ko déggee tur bi mhm. euh, oyof na si si si làmmiñ làmmiñ yi ñëpp yi la wala li nga daanaka ñëpp miin nañ ko xam ne ndox mhm. xam ne ndox bu tuuru xam nga non tur ndox euh, mag yi soo déggoon ñu ko daan wax mhm. jàmmale si jublu woon waaye muy xewal bu ko nit ñëpp xam ne ne ndox xewal la ndax tey ndox rek a nekk loo xamante ni si àdduna bi bokk na si li nga xamante ni si àdduna bi kenn xamul fu mu njëkkee ak fu muy daanalee bañ na ko ba soo tilimee sax da sangu pour nga set you know ndox tuuru sax ku nekk da nga waaw barkelu bi ndax ndax xewal dañ gëm ne ndox xewal la euh, moo tax ñu ani tuur ndox tuur ndox bi euh, pour wane ne like euh, xel bu sell la bi yàlla may Uh, xéwal la si jaam yi you know what I mean like uh, mooy mooy uh, knowledge wisdom bin am ñun you know what I mean xéwal la si yàlla xéwal la si waaw xew ñun wisdom bin am ñun xéwal la si si ñi ñuy déglu ñi ñu fiil you know what I mean so dañ fiil ne like dañ war a tuur ndox dañ war a génnee xalaat

it's a very good concept uh, at the initial stage it's su ko déglu dafa wax ne ok the confuse mm-hmm. uh, lan mooy but it's good that you clear it out mm-hmm. uh, Just last time I have mm-hmm. listened to all the sounds they are just beautiful they are just conscious but first of all you don't see street Learn more, motivate streaming. Learn more, moo tax nga indi comme like sounds like this mm-hmm. you know because uh, street they yaa a lot of things loo xamante ne they happen to street be among them xam nga nga school ku seven so you know nekkul nekkul nekkul the public toilet or mm-hmm. whatever mm-hmm. so learn more, in a nutshell learn more, inspire street Wow, waaw xam nga street like uh, look at inspire my man si street bi RTS laatika une RTS foot la si kaw tali bi ñu ngi war a nii and dama dee dama dee dama dee dama dee dama dee déglu news dama dee read news all all the time you know si paper si and eh, social media and stuff like that and uh, dangaa gis na like uh, right now si si si si wool bu nekk si si wool bu nekk disaster yi ñu ëppa uh, xewale ñu ëppa yu baax You know what I mean? and disaster yëpp uh, jaam yaa ko nekk di ko def doomi aadama yi uh, dañ lee fàtte moo tax ñuy def disaster yooyu noonu you know what I mean uh, soo gisee moo tax street bi ma def ko soo xoolee sound bi beat bi dafa tey dafa kaam ma def ko rap lu ne loolu leen di wax slam rap bu dal you know what I mean amul benn noise words after words words after words words after words you know and loolu la nag soo dee da ngaa gis ne like uh, li ma nekk di li ma gis si street bi si boppam man wax dëgg fa ne yàlla si bëri moo ma neexul. waaw neexul moo neexul moo ma teg neexul na ma trop et ma ne lii dama ko def si sound te dama ko def bi nga xamante ni du ko def fast du ma ko def hard rap dama ko def si tempo bu bu sedda et ma adi ko slam bu sedda et li ñuy mun a dégg. mu ngi cee dégg mu ngi cee bàyyi seen xel ba man mii sax di wax ak ñoom mu ngi cee bàyyi suma xel. you know what I mean cause ñun ñëpp si jàngat lañ nekk ba keroog mënoo uyu ji suñu borom you know what I mean so uh, loolu la den soo xoolee street bi lu fa jàll yëpp li am la so uh, street bii nii uh, sound bii ngeen bi mu ngi mu ngi YouTube mu ngi YouTube mu ngi Facebook. you know what I mean. yéen ko ko seetaan YouTube def Paa Mamadi rek. waaw nga def street bi di nga ko gis. street bi di street. ok waaw. ok ah tur bi ñaata fifteen tracks moo fifteen tracks. kan ak kan moo job bi. sound si mix moo ko master. Oh, ba pare uh, projet bi amul featuring. amul fusion euh, am na euh, reggae am na. singing black uh, black uh, Adilton. waaw black Adilton la. black Adilton la waaw waaw moom tamit uh, reggae artiste la. you know, upcoming reggae artists like Umuno Wola. Mm-hmm. you know, you know, the flag. something nice. Yeah, yeah, very great. Yeah, yeah. yeah. Sambo, welcome. My last Sambo my job was a mixtape, man. Okay, my last Sambo. Yeah, well, Big Boy General Monko job, you know mm-hmm. what I mean. And intro with I mean, Monko Defak, uh, uh, uh, Benin, Benin, young, talented artist. Brilliant. Uh, brilliant. Brilliance, brilliance, yeah, yeah, you know what I mean. And I'm not Sambo, enemy with my MI, Momo Defok Big. waaw beneen bi like uh, I think yooyu la you know what I mean. waaw fu mu la fu mu la yooyu yooyu feature. waaw ak 24 hours. Ahmed fu mu la. waaw Ahmed waaw mag Ahmed ak ak Marie waaw. waaw ñu ñëw ñu waaw ñu ñëw moom ñoom tam hub bi rek leen téye. Um, beneen bi 24 hours maa wu si di bu soldaaru may ma ko chara bu baax a baax yi ñoo def 24 hours bi. 24 mhm. hours bi nag dañ fa doon andi dañ fa andi benn. benn benna style see see hip hop yi Gambia you know then andi like four different beats you take for four different concept you nekk benn sound four different beats four different concept mu sound beautiful beautiful it's Godfather right here on 105.7 in case you don't know you know what I'm saying <laughs> you can relate to the OGs man yeah man yeah <laughs> uh, uh, two of the mixtape you know uh, for how long uh, when like in job see for how long in the job? No, Tondo be like uh, to be frank, in the job like three months. Three months. Or three months in job sams. Yep, mu fare and nu buy extra two months. But I'm gonna mix master code finalize. Yep, master will you know uh, uh, mu ngi five months because time boobu suma mère bi dafa xawoon a feebar moo tax mu jëloon yeah mu mu mujjee pass away you know moo tax mu am sound foofu noonu Get Soul you know what I mean boobu tamit. maa ngi bëggoon a play boobu noonu waaye boobu maa ko yóbbu last balaa ñoo ñëw fii jooy. yeah Get Soul you know what I mean ni ngi ni Get Soul you know what I mean because maa ngi ko sound boobu maa job day after bu meer bi nelawee you know what I mean and. Uh, gonna uh, use woon last song boobu noonu after ñu waaw dañ new, ñu def ghetto youth bi last song mooy last song buñ record si si si si tournoi ok bàyyi ñu bàyyi ñu bàyyi ñu ñu check sound bi uh, get soul uh, get soul the dama déglu sound bi man sa tuuti ma jooy now <laughs> but rest in peace rest in peace yàlla yàlla fu mu nekk suuf seera suuf seera si kaw ok let's go with the sound moom fi wàccee jox ma jëm a ruu mission mi naa ko eggale même bu dee damay suux tarbi yu yesalaat samay ruux man duma duma ko ragal ndax man bi lay guux di man ci moom la liy génn ci say bët du ndox deret la doñ jooj di bëgg bàyyi da kooba li ngay gis sa géntal jàpp ne sa leer la mu julli ci man ma julli ci moom jublu ci moom li takk ci man mu ci moom bul ma teg bët mbóot xóot kii di poplo dembay tey tey ak suba tenk jam ak musiba guux ru fu mu jeme lay deelu eh, di ñaanal di ñaanal ko ko xamanteni ni jitu nga rek ci ko suuf de mbokk boo ko xamne am nga ko jitu ñu ñaanal yalla yow rek ko suuf en ko yeeram leen di jégal leen di xamal leen àjjana eh. ah, man xaw ma yow loo mën a loo mën a man but I don't do this Yeah. <laughs> yeah. But uh, I will ask you, uh, on deaf sound, how do you feel? Yeah, sound is modern deaf like uh, uh, this na this na why I'm not sound good on this. Uh. Yeah, well, Mangi like, going to be in a sound. Uh, missing, uh, missing F Jack, F Jack, F Jack. Uh, yeah, uh, you yeah. know, Serakunda Makeda. Yeah, yeah, you exactly. Know. You know, uh, sound maybe. Mm-hmm. More on deaf, uh, so do your sounds that you know how you daf ko dafa euh, daf ko dafa yëg-yëg. ginnaaw bi ko maire bi maag moom ñoo nekkoon bu mu feebaree ñoo doon fanaan lopitaan ñoo doon oh. nekk all the time and man la mujjee waxal si. balaa balaa balaa mu génn àdduna. ginnaaw maa mu nekkoon ak moom tamit comme ni ma la waxee ñaari ruux yu fanaan benn place. Mm-hmm. dem naa ni café gàddu samay classe. Oh. gaas mm-hmm. moo ti rocc ruux yaram sedd glace. doo ruuma te doo fay paas onastaan la lay maam moo nekkoon guddi bi nga fajar ndax sa guddi da nga ko daan defal dogi ñaan ba pare fajar da nga ko daan defal dogi ñaan mm-hmm. so li ma pare dogi ñaan ba pare ma génn a dem naan café mm-hmm. jënd café si shop bi Banjul si lopitaan bi ma jëndee bi ko soxla dama ne naan ko fi trop ma jël jënd kaasi café dama ko naan ba pare rek you know bi tex ma ma dugg si fekk am nga du nelaw Oh. You know what I mean? And yeah, so the like is the mere we you know you know and sickness be for our summer and sickness be the follow us on come so time work over to one night to one come what the what happened right mm-hmm. you know you talk more talk talk nice then uh, call guy in boka in you then uh, man buma to make relax understand you know then night be like dugal fast Oh, that seems like. Yeah, night go in the studio you know yeah it's very difficult man it's very sad man Wow, dafa dafa dafa dafa stress bon maire bi man maire bi real, suma suma suma suma real, real, real, real, real, real, my town and you know maybe i am the ma couple of years but i am raka fifteen years man I'm soog a am raka you know maa suma yaay rek so, language <laughs> <laughs> for almost 15 years. Yeah, huh? yeah, well, you know, man, because I uh, will, <laughs> oh, um, you know, yeah, and they, I'm not, you know, oh. you know, small while, small while, big time. Oh, uh, yeah, yeah, yeah, that's what said, it's called. I mean, it's, it's I mean, so painful, you know. Man, I'm bu ma déglu sound bi bu ma toogee déglu sound bi I was like man speaking on my man man I cannot do this because man mi xamante ne come, ok man may déglu sax Maar de man ma seda ma de sound thing. So the imagine okay yo minga minga hamilton okay yo you witness everything yang si ma pitam be you are the last person ko ma dem mom la waxal bala mo dem. Mm-hmm. How are you going to feel when you yeah. when you relate the relate the sound out to the people? So mm. to be frank frank frank is good on taking time la waaye xam nga li ma dimbali mooy mm-hmm. foofu lu mel noonu ba ma njëkk dal mooy mooy def jàpp mooy FJAC. so so da si tabu maa bi na sang boobu bisin FJAC mm-hmm. boobu dama ko jooy. bind bi dama ko join record bi ba pare bu sound bi paree mhm. ah, raw bi first night ma déglu ko dama ko join ba dama ko stop oh. but from there la kick I was strong si la commencé di make mooy suma foo song sama def rest in peace song mhm. dana sànna mi bi ko man yooyu dama ko daan daw ay rest in peace waaw What will be the uh, sorry, sorry, man. Sorry, man. It's just a painful, you know, yeah. uh, painful uh, moment right there. Mm. Losing, mm. losing a fan yeah. is so, is so painful. Losing mm. a mother yeah. is so painful. You know what I'm saying? Very, very painful. Uh, Fugay nega like yala sufsela said cow. I mean, I mean, yala sufsela said cow. I mean, uh, I know this is the feeling we are going to end it. Mm -hmm. <laughs> I know we don't want it though. Yeah, the time of Nibuka Jambo, but with the uh, uh, mixtape. waaw ku euh, ko bëgg a am fan a nag. yéen mixtape bi free mixtape la. la because of maire bi tax ma def ko free. Ah, waaw maire bi moo tax ma ne ko ñëpp free mm-hmm. you know di a def show you know what mean. Mm-hmm. xam uh, moo tax ma may ko ñëpp free you know what I mean. Uh, ku ko bëgg a dem YouTube. dañ ko download free wala nga text ma si 3536709 whatsapp naa la ko yónnee file document wala ma yónnee la ko 3536709 3536709 wala soo demee Facebook wala Instagram wala Twitter nga teg nga type Pa Mamadi soo ma seenee message rek nga ne ma mixtape bi laa bëgg a yee man naa la ko seen naa la ko seen like mm-hmm. audio file wala wala waaw any format boo bëgg rek naa la ko seen wala tamit su dee am nga am nga connexion bu strong mun ngaa dem YouTube nga type Pa Mamadi pour nga ah, waaw di nga waaw muy playlist bi yëpp a nga koy pare download free la YouTube danga koo download ah, beautiful mm-hmm. uh, déglu from A to Z. you know I'm a big fan. thank you very much bro. I'm a big fan. thank you very <laughs> much. and uh, you know uh, to all the citizens out there you know the mixtape is just absolutely free. Mm -hmm. free. Mm -hmm. You got it online, download it. you mm-hmm. know uh, you know feel the vibe in it because uh, it's uh, entertainment. Mm. It's not only entertainment, but it's entertainment. Mm. There are some messages mm. messages inside the uh, inside the mixtape that you know you need to get as a citizen. So uh, uh, it's all from uh, Godfather right there. Yeah. Uh, what are some of the last words you know you're, you're to, your fans out there? Yeah, the one guy like you, you, you, keep pushing, mm keep pushing, you keep beliefs and uh, artists be power money, you know I mean? You know, you keep support Bubahaba, mm-hmm. you know what I mean? And you watch out for ENM project, you know, inshallah, I mean, mm-hmm. and more video, Gangster Love Bang, and your video will yeah. very soon, you know what I mean? Mm-hmm. Uh, nu ko commencé shoot on the 8 incha allah rabin waaye yeneen vidéo bi uh, fans yi bëgg naa leen di jox least minimum five videos minimum in project five videos. Yeah. already ñaari video game. yeah already ñetti video génn oh that's a video game. video moo génn ba My wallet job. I'm not gonna get more than five Not more than five Well, minimum that five video daal ko if you go décembre December DJ, inshallah. beautiful yeah uh, beautiful Then uh, minimum five videos expected uh, from uh, the tour mm-hmm. uh, mixtape it's a mm-hmm. beautiful feeling right there uh, time we just tap tap tap through, uh, you know, uh, one guy till uh, we, meet, we meet again uh, next week, same time, same frequency. Our guest was Godfather right there. Yeah, the mixtape is. Bro. Blessing. It yeah. was a beautiful feeling, you know, coming right here and embracing this moment with us. it was a pleasure having you right here in the studio. We out till next week, same time, same frequency. Thank you. Bro. Blessings. All right. Thank you.